waaleykum salaam wa rahmatullah waaw lu xew fii man Alaji Moussa Ndiaye laa tudd je suis opérateur d' économique ci village de Fouta ci bu ñu wax Ndouloumadji Fune bi tey nag euh, maa ngi leen gërëm avant tout na ngeen ñëwee fii euh, teewee situation bi nu passé en grande surprise je suis opérateur d' économie je suis de trente ans place bi man maa ko jëndee ñi ma jënd ñu ngi fi en vivant mun naa leen jënd image ma jaaye léegi jékki-jékki ñu ñëw am na yoo xam ne euh, waa bambara ñu ne ay Souleymane bambara lañu tudd je ne sais pas ou bien yeneen tur yooyu daal bambara yi jógee Mali ñu ne ñoom ñoo ko moom ma woole nag ñi ma jaay dal di indi yeneen affaire yi woon ay papier ma da ak ñoom nag bu domaine ma na ko boo yéen li ngeen ma jaay c'est comment nangu ñu wax leer daal loo xam ne sama diggante ñu ak ñoom Je suis conseil technique bu ci domaine ci papier juddu kergi place bi ni ni ben tubaab moko joxone euh, venu bambara bu tudel euh, ay affaire bamb sante bamb yoyu nak koku à 18 ans mu passé avant 60. à 61. 66 liggéey naa fii ci tool bi on m'a payé 3000 francs par mois bi ma jógee Fouta Matam Ndoulou Madji dans mon village natal des villages de Macky après ça ça avec ça que j'ai vu transport pour aller au Mali bi ma demee Mali pour la continuer ci sama débrouille commerce sama continuer Côte d'Ivoire dem jusqu'à Zambie et que j'ai tourné Zaïre ma ñëwaat Côte d'Ivoire la laa amee moyen importation depuis 97 là commencé importer de bois ma indi ko fi ci Sénégal fii 97 laa jëndee fii ñii ñi ñii taa boobu lañ jundoo am nañu jabar am nañu doom ay ah, kayit wu kayit yi waa ji dana léegi dana waa ji ki ma lay wax nii léegi dana leen envoyé kayit yi kayit ngeen gis ko parce que man amul lu may teg ci wax man ci lu ma jëndee li may jëndi aussi comme bon le place était grand dafa yaatu woon dañu maa ne boo xaalis bi moom ëppoon dool man dama envoyé dossier sur Abidjan sama société bi may liggéey je vais payer ça en c'est-à-dire il faut nga fay par euh, moitié quoi xam nga dafa bari y' a y' a 17 parcelles mais avant que tu fay déjà ils ont payé deux parcelles en terrain man yo man man man jënd pour faire euh, cité ou autre man dama jënd pour entreprise ci loolu def depuis 25 ans c'est lola nek ni non léegi noonu nu kay man moma jaxal pourquoi mo jaxal ma man dama jógee fi dem Fouta avant-hier à Matam dama dombi bi woo ma mu ah, en tout cas police ñëw na fii mu day dajji kër gi ma ne ko à quelle cause ñu ne dañu am l'ordre pour ma ne bon nañu xaar ñoom mu ne non non sa pap mu ne waxal ak sam mu ne non non non on n'a pas venu pour ça léegi ce qui m'a fait mal en plus ñu fi nekkoon yëpp employé yi plus de cinquante personnes kii hmm. ñu ma jaay kii mooy seen gardien bu léegi mu ngi fii tool bi mu ngi nii léegi ñoom dañu ni waa kër gi yëpp sama jabar yi sama doom yi quatre femmes la am fii la ñu nekk ak seen doom ak ñeneen sax ma amoon na sax quelques loolu waaye parce que y avait troisième étage leen ci biti fale fu ngeen duggee ñu indi élément falé ci mairie mairie bi nek fi ni mairie pikini abula timbo, fofu lañ jëlé 60 personnes ci li ñu ma wax ñu dañu am waylé le tini loo xam ne li li ñu ñëwoon fi dugg ñu dugg ci kër gi ñom ñoo génne bagage bu falé sama dé ko fort gisuma ko bagage ak buñu koy jënd mun nañu léegi dem visiter bu léegi amul indi daal huissier ñu bëgg jënd pour mu seet ici mu ne non je n'ai pas de temps pour ça je vais te faire visage comme la manière que vous êtes venu dama leen damay woon lépp loo xam ne li fi nekk nii ngeen yóbbu ko ci yoon bi mosuñu ko gis ma ne ana ana huissier bi ñëwoon ñu ne amuñu huissier ñi l'ordre la ñu am dama leen toj pour Moussa Ndiaye alum amul ko ba léegi nag su ngeen amee kii da ngeen dem ci l'ordre bi la ñu su l'ordre ne bàyyi leen ñu bàyyi ci loolu laa ñëw na fekk yëpp dafa sax ma ñëw démb bon aw ma benn papier amul sommation amul dara amul kenn ku ma jox papier voilà mon enfant et les enfants lui la man sama doom amul benn ku jël gaal ñu ngi fi dund fii sol la am na sax ñu ñëwul parce que ñu nekkoon individuellement ñooñu nekkuñ fi ça c'est sama seet sama doom ay jarbaat ñoo fi nekk emploi ñoo ñoo nekk emploi liggéey bi mais ñeneen ñu individuellement yi depuis bu mu tàngee parce que léegi liggéey amatu ñu ne ma 48 heures bu desee fii almet la ñu war def ci bant yi mu xam yow mu ngi ni chargé sa kanam def da ngay def image 48 heures sa juste à 3 heures matin 3 heures demain 48 heures bi 3 heures ñu des bu ñu ñëwee fii commandant Dieng ñëw na fii sànq mu ne bu affaire bu kii bu desee fii yéen la police de commissariat de Pikine voilà en gros ce que je pouvais vous faire le reste là boo xam ne li ngeen di mën a liggéey pour kayit pour numéro danaa leen jox situation bi ngeen mën a yóbbu ngeen ban situation ngeen mën liggéey seen kayit ñii ñu ne yoon man je n'étais pas là man nekkuma fii ñu ne moom moo moo moo ah ah bon mu ne mooy tongal policier yi man xam man gisuma kenn man bala bi ma ñëwee lépp yàqu na parce que amuloon espace fii mënuloo woon dugg fii même bu ñu la fetalee doo dugg fii étage bii moo nekk fii am yoon am teen deux millions cinq cent mille laa ko defar woon quartier bi yëpp fii la doon roote fii doon foote weer fii machine la ñu indi mu ne damier fii ku mu nekkoon bu liggoon fële mu nekk seen magasin beneen bi mu dem foofu mu ngi nii Ngor Njaay la tudd kii mooy employé ñi ma jaay mu ngi nii kër lu ma ci jaaxal fii jusqu'à la ki ma jaay moo ko jaay étage yi jëkk bu bees bi ñu ma tabax fale ñoom ñoo ko jaay famille de Cheikh Ndiaye ñi ma jaay ñoo jaay quartier bale yëpp mais lu ñu toj Moussa Ndiaye opérateur économique bi la ñu doj doj kii jindi nag mooy Sosomat Sosomat mooy usine naar bi Mauritanie loolu libanais bi nekk fii ci booy wàcce pont bi mooy libanais boobu Baptiste Bilis non non non buntu bi kii dafa leen ndànk bo marché à Dourwaat kii jaay di bois on on paye ensemble au Gabon comme Côte d'Ivoire C'est la concurrence qui est là. Je ne sais pas où ça vient la force. Maintenant, Sosomat, Sosomat, Radouane mooy mooy mooy mooy délicteur foofu léegi ñoom ñoo ñëw jindi ñu dem yow man ka ñoom Radouane daal moo indi martal tey tey birig yi mu ngi nii naar mosul ñëw fii naar bi mosul mosul mosul def fii dafa dafa ragal moom Souleymane Bambala indi kooku mooy seen indicateur moo moo leen jaay léegi kooku bu léegi moo nekk nii dafa ma ne maa ni ba dindi len tey bi mu waxee boo su ma ne waajee bu dem indi commissaire mooy Souleymane Bamba famille de Bambara yooyu ñuy Bamba Bamba yi mais léegi nag soso mat moo nekk fii libanais bi libanais jaaykat bant bi bu ngeen jaaree foofu ngeen fekk dafa bant peuple sénégalais mu yoree jaay bant man indi naa huissier wane naa lépp maa ngi jàpp ci yàlla jàpp ci yàlla bi wane état bi su fekkente ne dëgg moo am nañu seet bu ma ki seet man yoon laa wax a dafa femmes, mais demain, même ça, même su ma nekkoon fraudeur un libanais bu jëlee suuf voler le volé ci liba ñëw fait un citoyen sénégalais y yore cent personnes di Vous avez vraiment su fekkee dañ jël vraiment bor ñu Sénégal Ici, si fils du Sénégal man Baye Macky sama magla. mag la on est de même village on même kër jàkkaaroo kenn tontu Moussa Bouka Ndiaye Ndouloumaji Founébé janvier 1947 le 6 juillet en 1947 à Ndouloumaji Founébé. maa ngi fi alhamdulilah ah, maa ngi leen di nuyu di leen ah, masawu waa senegal yëpp parce que lii ñëpp la métti ah, lu am fii métti na trop métti na trop sama papa ay borom njaboot la gis nga ëpp na fii ay téeméeri nit fii lay nekk di liggéey. paa bi daa dem fuuta yëgul dara ngeen ñëw tooj kër ñeenti jabar ñu ngi fi ñun ñun ñëpp ay doomam lañu xam nga dafa metti suñu bagage dara génnul papier am lu nekk xaalisam lépp réer na fi xam nga dafa metti mais damay lancer fii benn message Macky Sall Macky Sall dafa xam kan mooy Moussa Ndiaye parce que kër Macky Sall kër Moussa ñoo dandaloo sama papa bu amee problème bi Macky mu ngi ci biir man Adama Ndiaye maa wax lii Farba Ngom nañu nañu tëj seen bot yi ngeen xool li ñuy def dafa metti dafa metti ku wax mettiwul dalu ko faa bu toll ni ñetti kër ak sen seen njaboot ak lépp ngeen génni fanaan si mbedd bi dafa metti mais na Macky Sall na xool nijaayam la def nii lii dafa metti loolu rek laa bëgg a lancer waaw merci dafa am lu bari xaalisam lu bari réer na fi lal lépp looy xalaat bagage kenn génnul parce que ñoom bu ñu doon ñëw mu ne ñëpp ñu génn di toog ci biti bu la waxee ñëpp ñu génn toog ci biti xam nga jël jël nañ ñu lépp jëluñu fii dara lool moo ñu métti même léppam mu ngi mu ngi ci biir ñun suñu alal la ñu soxla suñu alal la ñu soxla que justice soit faite parce que ñun sonn nañu sonn nañu nu ñu def nii kii borom jabat la borom famille la père bi ga gàcce ngalaam def na lu nekk Macky daa xam kan mooy Moussa Ndiaye waaw merci beaucoup ah lu xew moom xanaa dafa métti rek metti na trop lii moom vraiment rafetul bu fekkoon gouvernement bi rek moo soxla woon loolu di problème dañu ñëw waxtaan ak paa bi ñu war a jox paa bi ñu jox paa bi paa bi dem uti feneen def ko continuer di def ay projet am mais en soo gisee affaire bi métti ñu trop naar mooy ñëw di jënd te kii doomu Sénégal loolu loolu man loolu mënu ma comprendre ba léegi mënu ma comprendre naar mënul ñëw mu ne day jël fii doomu sénégalais day jël place am moom mu nekk fii def entreprise am te kii lu muy def fii nii macha allah ñoo moom ak euh, Macky Sall ñoo bokk benn dëkk ñun daal dañuy wax Macky Sall lu mu munti mun dañ ñëw jàppale paa bi vraiment rafetul te métti na man instant bi dama sonn lépp la ñu yàq parce que bu ñu ñëwee paa bi nekkuloon fii dafa voyagé woon bu ñu ñëwee pour ñu jël bagage yi sax gars yi nanguñu ñu génni bagage sama sama papa passeport am ak euh, papier am yëpp ba léegi ñu ngi xool mais gisuñu ko kon nañ ci yenn bagage yi ñu waroon ñu génni woon mais ba léegi gisuñu papier am yenn papier am na loo xamante dafa réer loo loo mënta def mën na jox nit ki temps même fekkee une heure mu génni bagaasam nga def li nga war a def mais nanguwuñu sax xaar sax ñu génne bagage yi man loolu moom mënuma ko comprendre Sénégal moom dafa métti daal lii moom du Sénégal quoi métti na